kàddu mooy jëwriñu ndakaaru ak li ko wër xam ngeen taxawaayam ci grande mosquée Massalikul Jinaan sëñ bi bismillah katabtu kulli faara xasan ba wa shirka wa xablu saara bi li si bi mu taatarka kalaami wa niyati ba fi toojuhut ilaa man kafaani isu a wa tawasaka كفواني حفيظ مانع جمتنا ولخادع أهوابا بوسر النصاء كتبت وخدي شكره ردو خاطبا لو نحبه أنكل كلي زازا دنكا salaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi nuyoo ci nuyoo bi gën a rafet muy nuyoob jullit ñu jël suñu nuyoo teg ko ci ki fi toogal sëriñ bi muy cheikh Mouhamadul Fadal ibnu cheikh Abdul Xaadir ibnu Xaadimu Rasul di ko ziyaara bu baax a baax moo njabootug Serigne Touba gi mu àndal yépp ñu leen di dugal ci boobu nuyoo di jottali rekk ci ndigalam ay nuyoo ak i ziyaar ak ñaan yu bawoo ci cheikh Mouhamadul Muntaqa cheikh Mouhamadul Muntaqa al ibnu Xaadimu Rasul bu jëm ci moom ndax sëriñ bi moo ma woo démb ci waxtu wi jox ma ndigal loolu te jombulit mi ngi may dégg wax ma ci moom mii ay kàddu wala ma laaj comité d'organisation bi pap xuma bu ma amee cinq minutes rek ma gàttal bon waaw kon day defe naa noonu wala gëne ndax waxi sëriñ Touba dee su ko lem bu ñu fi nekk ba déwén nit du doy ndax fii jaloor yi sëñ bi rek lañ fiy wax sëriñ bi nag mooy sëriñ bi dafay am ay moment yoo xam ni dañuy génn sëriñ bi ci ordre normal des choses ndax bokku ci bu ko temps bi mayee dees na ko firi dama ni sëriñ baa may déglu moo ma yóbbante ci sëriñ bi di cheikh mohamadul fadal di yóbbante ci moom ay cant ak i ngërëm ci li mu bokk ak moom muy liggéeyub sëriñ tubaab bi te mu mat li mu doon ci liggéey bi taalibey murid yépp xam nañu loola ca moom mu yebal ko ni mu ñëw jiite julli gi nga xam ni moom lañuy màndargale julli gi sëriñ bi jullee woon ci biir géej gi cheikh bi mu mel ni jàng xasida day ak waxtaan bokkut waaw ñi mooy ñiy jàng nañu déglu sëñ bi wax ba noppi ñu war a continuer jàng mi loolu la ñu waxoon sëñ Lamine waaw ma ngoog wax ma li mu bokk ak moom ci liggéey bi ni bu ma ñëwee naa ko sant ci kanamu mbooloo kon sëñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di sa sëriñ nee na mi ngi lay sant fu cant mën yem moo ni ma woon bu ma ñëwee nañu ànd ci julli gi ñu julli jàng alxuraan jàng xasida moo ma waxit ni ma nga waxtaan ak taalibe yi bu ci xajee mi ngi may déggit nag ñun nag waxuñu suñu waxi bopp ndax amuñu bokkuñu kenn am muy sëriñ bi wutuñu dara it nag ludul sëriñ bi yàlla dimbili nañu ba ñu nit gëm nañu loolu tey ci lañu ne newuñu ci leneen newuñu ci leneen lu dul wut ngërëmul sëriñ Touba di ko wut nag di ko yéene ñëpp ndax ngërëmul sëriñ Touba kat moom rekk a am solo kon soxna Sooda sëriñ bi mu ngi lay nuyu bu baax di la sant ci liggéey bii yàgg naa la koy wax di la wax liggéey bii kat sab liggéey la sëriñ bi mi ngi la ciy gën di sant di la gën a ñaax di la gën a xamal tamit ni nii rekk la ànd ak taalibe yi rekk dara bañ a laal suuf ñu ànd liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Touba nag liggéeyal ko yomb na ndax lépp Serigne Touba da ko def ba noppi bëgg ñoo boole ci liggéey ba bëgg ñoo dimbali sagal ñu waaye kenn deful dara Serigne Touba def lépp kenn deful dara kenn mënul dara lépp Serigne Touba la sëriñ Tuuba moomu nag jamono du jeex mukk te ñépp xamuñu walla gisuñu lu wér ceng ni yàlla la mu déggoon nit ñi ni léppam dina ko feeñal ci àddina dina feeñ ci àddina te ci sëriñ Tuuba mii lay jaar feeñal gi yàlla di feeñal ni moo ñu bind moo ñu moom moo ñu fi indi moo ñu fiy jële moo ñuy wër sëgale yàlla dina ko feeñal balaa ñépp dem te ci jëmmi Serigne Touba la koy feeñal li Serigne Touba di wax du saxo ci moom du ak wonewu du bëgg ni ñëw leen ordre la yàlla mooy def décret ba pare ni ko jàngal décret bi bind ko ba pare jàng ko na ko nit ñi jàng loo dégg mu wax ko rek ca yàlla la jóge ñëw ci jëmmam ji pour doomu aadama yi kooku luñ ko ëppale lu ñu ëppale Serigne Touba dañ ko jël ci jëmmu nitam gi mu won ñu insaaniye gëm bi ñu mel te sëriñ bi nekkul foofu sëriñ bi c'est la manifestation de Dieu la plus parfaite sous une forme humaine bokkaale wu ñu de li muy wax yàlla koy wax ni ko wax ko maa la ko defal wala wax ko maa ko def ci sa jëmm defal na ko ci ñu baax lool ñu tudd ay yonent yu mag ñii di dekkal ay néew ñii di faj ay gumba ñii di def lu ne muy ay muxjisaat yu rëy loola nag du ñoom yàllaa ko def ci seen jëmm li ngeen gis Serigne Touba def ko it nag yàllaa ko def ci jëmmam moo wàcc ci jëmmam mu def ko moo tax nit ñi xool ko ci nit te sëriñ bi nekkul foofu weesu na foofu kooku lañu àndal du yëfu daanukat du tamit yett sa xel bëgg a wax nekkul foofu Serigne Touba mbiru yàlla la te meneen mbiru yàlla mu mel ni Serigne Touba dootul feeñ xaju fi xajatu fi sëriñ bi sax date na ko nit ñee ko xamul rek moo ni feeñ ñeenti téeméeri at ki bind bind bii tëdd fii ñu jàpp ne jóge na fi feeñ ñeenti téeméeri at loo leen gis ci yiw moom la loo leen gisul ciw naqar moo ko dàq yàlla bu ñu fekk ginnaaw gi kon kooku mooy sëriñ Touba mais cat li mooy dañ ko tudde ni suñu sëriñ la sëriñ mu nekk une appartenance parce que boo nee sama sëriñ rek keneen ni sama sëriñ keneen ni sama sëriñ ñu defe ñu ñoo yem déedéet dañoo amul weneen tur wuñ ko tuddee am leneen loo xam ne buñ ko tuddee àddina tukki El Hadj nitu yàlla ju mag la woon ba mu demee ba ne anal xaq man maay dëggug yàlla gi dañ ko rey te wax na dëgg loola la woon yàlla wàcc ci moom mu doon dëgg attribut yi nekk nag ci attribut ñu koy attribuer ki ñu bind muy yàlla moom la dugal ci jëmmi sëriñ Touba gii muy defe noona amul benn werante kookooy ki ñu àndal mooy sëriñ Touba daf ñoo ëpp nag daf ñoo jomb daf fee musula am loolu indi coow li ñu koy xool ci ay aayaat di ko xool ci ay littérature di ko xool ci ay bind waaye sëriñ bi li mu bind sëriñ bi xal bind li mu bind li mu wax a ko gën a garaaw dañ faa eggagul du ma fi jóg tànk yàllaa ngi fi maa ngi fi bu fi yàlla nekkatul nekkatuma fi xam nga lu tax yàlla moo jël nekkam gi dugal ko ci sëriñ Touba ba yowmal xiyaam Serigne Touba dafiy ne ana suñu maam yi fi newoon ak moom ana suñuy baay ba ñuy dem nii lañ ko bàyyi woon lii te day gën a jëm kanam lii ñëw kenn xamul lu mu doon dafa am loo xam ni boo ko xamul rombal te dem boo ko xamul rombal dem boo gëmee gëm nga boo gëmul rombal te dem yàlla moo ni kenn du ko xam waaye lu bari nag dinañ ko xamee yàlla ci Serigne Touba ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp tey xam ni nañu gën di sant yàlla ci lii nga xam ni yàlla baaxe na ko muy suñu tawféex muy boole gi ñu yàlla boole ak sëriñ tubaa sëriñ bi lii yombul de gaa lii yombul suñu tawféex la suñu wërsëg la mooy ñu ñuy tudd di tudd sëriñ tubaa te kenn ki rek la woon waaye looloo neex nag sëriñ bi moo ñu ci boole ñun li ñuy ñàkk solo ñàkk solo ñëpp sëriñ bi ñun rek la am waaye ñun it moom lañu am kon ñoo ngi gërëm ñëpp di fàttali nag mbokku taalibe yi suñu mbokk yee dëkke Touba waaye nag ma ciy wax lu am solo barab boobu moo tudd Touba day barab boo xam ni ni mu ñëwee ci àddina bariwul bërëb yu ñu ñëwee njëm am na kenn ko sanc kenn musu ko moom mu am luñ ko fa déel yàlla am lu mu ko fa dig am lu mu waxante woon ak moom démb te ca pàkk boobu la ko diggee loo fa gis wëlbati jamono la rek ngir mu mel na mu ko bëggee bu kenn jàmbat bu kenn nemat ku mën a dimbali ku ne nag na ko dimbali dama ni lu jamono gën a dem leneen di gën a xee feeñ Touba leneen di fa xew ndax àddina foofu lay mujj asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> léegi nag na ñëpp toog imaam Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre la ñu koy jox waaye ñoo ngi gërëm bu baax le commissaire central Bodian xam ngeen ni avec l'appui du commissaire euh, euh, Muntaha Khouma des Parcelles Assainies unité 15 ak le sous-préfet des Almadies ku gis éléments yi xam ni démb ba tey mbaa bërki démb ba tey jàpp nañ ci dana ko noonu li gis nag les politiques ñeneen daan leen tudd waaw sëñ Fallou lañu jox kàddu gi nag waaw Mbàkke lu ñuy déglu ñu ngi ñaan nga yàgg fi loolu tànn wér léegi laa waxtaan ak yow ci añukaay ba diggante sëñ Abou Madiana moom sëñ Baara bari sëñ Abdou Aziz mi toog ak sëñ Abdou Xaadar bu Moussa di ñëw Mbàkke màggal Tuubaa dem leen dem leen siyaare sëñ Abdou Xaadar te ñëw Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Mbàkke sëñ Cheikh Bintou Fall ñu ngi leen nuyu baax di la siyaare di la ndokkeel di ñaan yàlla yàggale sunu kanam sa taxawaay ci bis bi.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 wa huwa waliyul muminina wa xayrul xaafirin